waaw asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Ladoum TV ñoo ngi am mbégte ak contentement ñëwaat ak yéen ci li nga xamante ni si mooy concours bi nga xam ni mooy euh, la plus belle macha allah nekk nañu ay xar yu extraordinaire ñoom kenn du la nat dañ leen di dugal li nga xamante ni si mooy case de la vérité bi gannaaw bu ñu leen dugalee foofu nag ay leen nag ki nga xamante ni si mooy membre de jury bi ñu càmbar ko naka la lañ koy xar mi naka la mel nu bopp bi bindoo nu yaram bi bindoo nu gen gi mel nu kornu yi mel oh là là noonu lañ koy càmbaree ku nekk nag noté boo xolee tey sama membre jury bi ñoom ñëpp ku nekk ngi sëgg téye sa feuille téye sa bit di sëgg di siggi di rëdd di noté waaw ci biir la vérité bi ubbil nañ ko bunt bi nee saraax kooku nga xamante ni si culul la petite culul nee na fii laay jaar ñu ne ko doo fi jaar ñu ngi koy karkaral mi ngi forcé fii laay jaar doo fi jaar génn naatal dañ lay càmbar mi ngi taxaw jàkkaarloog membre jàkkaarloog membre de jury bi waaye tourné na ca beneen wet ba di xool ñi nga xam ne mooy supporter yi waaye ma ngay bëgg rëcc nee na saraax rëcc naa maa fi mën a jaar ay xar ma rëcc na mbokk téléspectateurs yi rëcc na ña ngi koy duuti ña ngi koy tëbali ña ngi koy tëbali waaye jàpp nañ ko nee nañ ko ciix kaay kaay duggaat ci biir mbete xale bu ñu ne kaay sangu nga rëcc daw mi ngi mel ni xale bu ñu ne kaay sangu nga daw ubil nañ ko buntu ba nee na tina nee nañ ko ubbil duggal neel sarax ca biir ma nga noonu dafa mel ni xale boo xam ne dañ ko ne kaay sangu rek mu daaw rëcc mi ngi noonu xar ma daa rëccoon waaye nee nañ ko ciixte ah mbokk téléspectateur Ladoum TV dixième édition Ladoum de Mbour version 2024 oh là là oh là là la plus belle ana kan mooy jël la plus belle oh waaye moom mi ngi yor ñeenti weer la am di nga jàkkaarloog ñi nga xamante ne si ay yaayam la jàkkaarloog ñi nga ne ay bàjjanam la jàkkaarloog ñi nga xam ne ay tataawam la oh waaye it jàkkaarloog ñi nga xam ne am na fii morom de mel na ni waaw ma nga noonu ma jóge ci box numéro deux cent deux vingt huit a ma noonu ma ngay njaabare di ñëw ma njaabare di ñëw ma ngay mbongu loolu la ñuy wax ma ngay di ñëw ah. xoolal ni mu koy cokk cokkalee ma ngay njaabare di ñëw xar maa ngay mbongu xar maa ngay mbongu di ñëw waaye bu ñëwee ay lu fi fekk ñëwee membre de jury bi la fay fekk taxaw di ko xool di ko càmbar di ko diagnostiqué di ko lijjanti di ko wëlbati gauche di ko wëlbati droite dugal ko ci kaas ba dañ koy ubbil mu ne saraax dugg oh ma nga noonu ma nga def loolu di tusngal ca bët ba waaye ma ngay kaabare ma ngay kaabare ubbil nañ ko bunt ba ubbil nañ ko case de la vérité ba ubbil nañ ko nee na saraax ca biir tëj nañu ma ngay wëlbatiku ma ngay daw di génn ñu ne ko doo génn ah si dina nee na sant santaaral ma nga taxaw jàkkaarloog ne jodd joddaaral oh là là elle est très belle elle est très belle elle est ngay xencu li nga xam ne mooy gazon ba oh ca xam nga ne lii waaye élevage rek a mën lii élevage boo xoolee tey dixième édition Ladoumé de Mbour version 2024 oh là là xam nga ne lii ay caaxaante du ay foo oh cay dixième édition bi ana mooy ki nga xamante ni si mooy mooy jël la plus belle ma nga noonu ma noonu mbokku téléspectateur Ladoum TV kooku mi ngi jóge ci box numéro 98 tubaar fakkal waaye ab taalibe moo ko yore ab taalibe moo ko yore waaye ki nga xam ne moom la ñuy andi oh xoolal ni muy tenkam tenkamee ma ngay tenkam tenkam jongama yaataaru ma nga noonu nekk doomu gaynde ah mbokku téléspectateur Ladoum TV oh oh oh ñi ngi fuddoon ñaari tànk ya jàllaw la lañ koy wax kanam ak gannaaw ak catu geen ca suuf mbokku téléspectateur Ladoum TV waaye ma nga noonu jàkkaarloog ñi nga xam ne mooy membre de jury bi ñu koy càmbar di ko diagnostiqué di ko lix mbóot ubbil nañ ko buntu ba nee saraax ca biir waaye ndaanaan da ngay génn seex bi da ngay génn bàyyi ko gaay gaay càmbar ko gaay diagnostiqué ko oh elle est très belle elle est très belle oh là mi ngi ne jodd mi ngi ne sàtt sàttaaral jàkkaarloo ñi nga xam ne oh xoolal ni muy daagoo xoolal ni muy daagoo oh là oh oh la là dixième édition la du Maître de Mbour version 2024 oh la plus belle kan moo fi gën a rafet kan moo fi gën a jongama kan moo fi gën a taaru kan moo fi gën a jekk oh là kan moo gën a cekkete oh. waaw sama caméraman ma nga noonu di ñëw ma nga jóge ci box numéro 199 oh ma nga yor tek tek la yore ca benn bët ba ma nga tus ngalu oh def ay kor yu rafet mi ngi toll ci 26 mois mbokk téléspectateurs yi ma nga noonu jàkkaarloog membre de jury bi ma nga noonu xool naa leen xool leen ma càmbar leen ma mbóot leen ma ubbil nañ ko ubbil nañ ko buntu ba ubbil ko buntu ba nee na saraax ca biir nee na saraax delloo nañu oh, mbokk téléspectateur Ladoum TV oh version 2024 la la waaye sama caméraman maa ngi gis ay caméra yoo xamante ni si ay caméra ngénte ay fuural ay caméra natt ndey dikke waaye ay caméra tontine ay caméra yoo xamante ni si mbete kopp fonde ah sama caméraman loo filmé wul baaxul mbokk téléspectateur Ladoum TV oh du ay foote du ay caaxaan version 2024 oh là là mbokk téléspectateur mi ngi noonu mi jóge ci box numéro 171 fii nga xamante ni si mooy Mbour mu nekk dixième édition Ladoum de Mbour version Oh, waaye tengaa dee ñëw tengaa dee ñëw tengaa dee dawal tengaa dee dawal ma nga noonu di ñëw ma nga noonu di ñëw ma ngay di ñëw ma ngay di ñëw waaye def ko ndànk rek def ko ndànk rek bàyyil bumba bàyyil bumba def ko ndànk bàyyil bumbi ma nga noonu waaw ma nga def teg teg baa nga noonu ña nga fuddoon ñaari tànk yi kanam ak gannaaw jàllawle lañ koy wax ña nga jël li nga xamante ni si fuddën catu gen ga oh. waaw mbokk téléspectateur Ladoum TV ba tey ñi ngi ci li nga xam ni mooy euh, concours la plus belle gannaaw ba ñoom kenn du leen nat dañ leen du dugal ci biir case de la vérité gannaaw bu ñu défilé ba pare dañ lay ubbil case de la vérité bi nga dugg ne sarax ci biir membre de jury bi diagnostic la xool la càmbar la lix mbóot la dugal la ci biir nag di la neng-nengal di la benn bennal di la xool bokk téléspectateur Ladoum TV ubbil nañ ko buntu ba ubbil nañ ko buntu ba nee na saraax ca biir nee na saraax ca biir mbokku téléspectateur yi ubbil nañ ko oh ma nga saraax ca biir ma nga noonu ma nga noonu ma noonu ñu ngi koy xool boo xoolee jury bi ñu ngi koy càmbar waaye gis nañu Bouga Fall ma ngay óobali xam naa dafa sonn xam naa dafa sonn ñu ngi koy càmbar nag ku nekk ngi rëdd di bind ku nekk a ngi rëdd di sëgg di siggi ah mbokku téléspectateur Ladoum TV dixième édition Ladoum Met de Mbour version 2024 oh là là xar yu yanj xar yu rafet ana xar mi gën a rafet ana xar mi gën a yanj tey mi ngi nii ñu ngi ci concours boobu xar bi ci gën a rafet xar bi ci gën a taaru. ma nga jóge ci box 213 B mi ngi toll ci 18 mois. ma nga noonu di wiiri wiiri jaari ndaari di wëndeelu mbaay mbaay ajaratu mbaay mbaay ma nga noonu di défilé ma nga noonu di tenkam tenkam di conkam conkam ñu koy ubbil li nga xamante ni si mooy case de la vérité bi mu ne sarax ca biir ma nga noonu jàkkaarloog gaay gaay dañ koy càmbar de gaay nee ko ubbil buntu ubbil leen ko buntu bi waaye ba Alioune Mbaye Alioune Alioune Kassé woyoon ubbil leen buntu caabi jaa ngi ko buntu bi mu ne sarax ca biir ubbil leen ko buntu yi mu ne sarax ca biir mbokk téléspectateurs yi ma nga ca biir ma noonu ma noonu ma noonu ñu ngi koy càmbar ma noonu ñu ngi koy xool ñu ngi koy xool ñu ngi koy diagnostiqué ma nga noonu ñu ngi koy lix mbóot boo xoolee ñu nga fuddën benn tànk ba ca gannaaw ak catu geen nga ca suuf ña ngi koy càmbar ña ngi koy càmbar waaw ñu ngi noonu di ko càmbar di ko càmbar. waaw ma nga noonu ma ngay defile ma ngay defile romb ay moromu xaram ma nga noonu ma nga toll ci 28 mois ma nga def cuulul bu rafet ma ngay ñëw ña fuddën ña ñaari tànk yi tànk kanam ak ginnaaw ma nga noonu oh ma nga noonu ña nga fuddan catu geen ga ca suuf macha allah ma nga noonu mbokku mbokk téléspectateur Ladoum TV ma nga jàkkaarloog membre de jury bi ñu koy lix mbóot ñu koy lijjanti ubbil nañ ko bunt ba nee na saraax ca biir ma nga noonu ñu takkal ko ay collier yu rafet takkal nañ ko seen muy melax seen baa ngay melax ma ngay sëgg di siggi di xool gauche di xool droite waaye jàkkaarloog membre de jury bi mi ngi ne sàtt sàttaaral gars nee nañ ko toogal xaar ñu toogal xaar ñu ñu càmbar la toogal xaar ñu ñu ñu lijjanti la toogal xar ma nee na mbee waaye li ci gën a neex li ci gën a rafet dañ koo takkal ay susu ca béy jën ya oh, dañ koo takkal ay susu ca béy ya ma nga noonu mbokk téléspectateurs yi dixième édition Laadum de Mbour version 2024 mu nekk la plus belle catégorie boobu ñu ngi ko dippee ki nga xamante ni si mooy le grand champion Serigne Mangane kooku ma nga ju ma nga ca ma nga toll ci onze mois ma ngay défilé di ñëw ña ngi ko takkal ay susu oh ay susu lañ ko takkal ca bëjën ya waaye takkaat ko ci ñaari tànk yi waaye fuddal ñaari tànk kanam yi catu gen ga ca suuf oh ma nga noonu jàkkaarloog membre de jury bi ñu ngi ko takkal ñaari affaire yu xonk ak benn chaîne ca digg ba oh elle est très ma nga yanj ña nga tusngal bët ba bët baa nga tusngalu ubbil nañ ko bunt ba nee na ca biir xaw na def quatre appuis waaye dellu si waat na oh elle est très belle elle est très belle elle est oh, ma nga noonu baby. Mooy télé